asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. bokki jullit yi bokki taalibe yi amaan nañ mbégte toog fii ci kër Cheikh Abdoul Ahad Mbacké jàmbaari lislaam ja nga xam ne moo waxoon ci làmmiñu boppam ne li feek maa ngi fiy nekk Sëriñ Tuubaa laa fiy nekkal waxaatit ne ku gont ngont mu guddi te bëgg a dab ña nopp lu waru la dellu waxaatal ci làmmiñu boppamit it wala xalimaam wax ne ataytukal yawma bi leen xitaahi kulliyat yi jaayanteeg Serigne Touba ci jox ko léppam na sëriñ Touba jaayante woon ak Moustapha sallallahu alayhi wa kooku nag bisam moo dëgg malaat bi mu dëgg malaatee war a nekk ñaar fukki fan ak ñett ci weeru kor wi dëppoo ak la fukki fan ak juróom ci weeru juin Serigne Touba xaadim rasul waxoon ca waxam ju rëy ji ca njaarim ne bisa ngi nii boo xam ne ku ma ci lebal teraanga danaa la ko fay waaye su boroom màggee it dana la ko fayal boppam santaane woon seex sépp kenn ku ne teraanga joo man nga def ko say sa kër daa mel na nag cosaan loola nag moo del siwaat bi nga xamee ne wari nañ sëriñ Sidi Mbacke xalifab Cheikh Abdoul Ahad borom yitte ak Pastef joxaat ndigal ay rakkam ñu dem ca Cheikh Mouhamadul Mountakha mi fii sëriñ Touba te ku ne xam ne ne kër gi këru ndigal la yëgalaat ko bis bi tàggu ko ko sëriñ Mountakha jox ko ci ndigal ne ko biss boobu Serigne Touba moo ko santaane woon doonut lu su mas a ñàkk mën a ñàkk def waaye nag dañuy soppi defin wi kon Serigne Sidi nee na jot na ndigal ci Cheikh Mahamadul Muntaxa di jottali ndigal loolu ci képp ku yaakaar Cheikh Abdoul Ahad Mbacké kaddu yooyu Serigne Saalihu rakkam dana ci ñëw ak Cheikh Mahamad Cheikh Mahmoudan Mbacké waaye bokk yi ñu xam ne bis boobu sëriñ Touba moo ci joxe woon ndigal te kenn ku ci nekk dalaa waxoon na fa sa kër wala mbeddi njaareem yi loo ci taraanga nang ko ci def bis boobu nag moo del siwaat ñu maase déglu kaddu yi bàyyi ko ci Cheikh Mahamadul Muntaxa jaar ci sëriñ Sidi war a jàll ci mbokki taalibe yëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki julli di mbokki taalibe yi ñu ngi jottali kaddu yu jóge ci eh, sëriñ Sidi muy xalifab si xablaat kaddu yi nag mooy màggaluk sëriñ bi jëlee na ndigal ci euh, Cheikh Mouhamadul taxa euh, mi xalifa Serigne Touba yàlla na ko fi yàlla dëgëral te yàggal ko fi te mébétam ak yenam bi muy liggéeyal euh, sëriñ bi lépp mu àggale ci ni mu ko bëgg àggale sëriñ bi nag nee na bi mu jëlee ndigal li ci sëriñ bi dafa am xew-xew yoo xam ne daj na adduna bi yëpp te ràññi nañ ko ci barab yëpp tax bi màggal gi ñëwee nag daje xew-xew yooyu mu bëgg ñu am nuñ ca soppi ca doxin wax waaye nag euh, lii màggal gi ak nañ ko daa màggalee ak lañ ci daa jëf ak nañ koy doxe loola dara bañ caa dañ bañ caa dañ nag mooy lu jëm ci njàngum alxuraan lu jëm ci euh, xaside yi lu jëm ci salaatu ala nabi Euh, ak lépp loo xam si ne euh, nit xam na ne ak ñaan la lu baax la mu mu def ko eggale ko te yéen yéen yéene ko si xam laxat ak mbokkam yam fa fekk yépp li ci soppi ko nag mooy dajale gi mbooloo la wax ne fu fi waay nekk ak fa nga tool ak fa nga nekk na nga na nga yëg ne na nga ko màggal na nga euh, na nga ko sëriñ bi sa kem kàttan ci wéetal ko ak euh, berneel ko ak jàngal ko yooyu dafa wax ne képp ku ko def ku ne na nga seet ña ko yayoo te yittewu ko nga jël ko yóbbu ko fa waaye bu buñ dajal sax mbooloo ñoom daal dañuy togg dañuy def déedéet seetal sa kem kàttan la nga daa def berne wala ko daa berne ku ne def ko euh, sa kem kàttan wala na nga ko doon defee wala nu kawee na nga ko doon defee seet ñi ko yittewoo te yeyoo ko nga nga nga yóbbu leen ko euh, mu ne daayira it nii mu wax ñii rek la wax daayira léet moom la ñu waxaa bitim réew yëpp fépp foo xam si ne ay taalibe nga fa nekkoon sax daa fa dajale màggal sëriñ bi nga xam nañ daa dajale ci mbooloo nee na li mu wax mooy eh, ren jii bu ko kenn bu ko kenn def kenn ku ne na nga màggal fa ngay màggale fa nga nekk ci sa biir kër wala sa biir néeg wala ña nga kilwaay bu kenn woote mboole fenn di ko fa dajale ndigal li mooy loolu te ndigal li ngi ko jëlee ji Cheikh Mouhamadou Mountakha ndax kooku rek koy kooka koy digal kookaa koy tere te musu musu ko dafa digal la sax moom ndigal loolu nag ñun ñëpp di taalibe ci ndigal loolu lañ tënku ndax moom ndigal lu mu tënku rek mooy suñ jiit mooy suñ lépp lu mu tënku rek fu mu jaar fa la ñuy jaar lu mu bëgg it loolu rek la ñuy jëfe amuñu lu ñu sàkku amuñu lu ñu amuñu lu ñu bëgg amuñu bañit lu mu ne lu ne lii la noonu loola loola tege nañ ci so tege nañ ca tafas nañ ci yéene góorgóorlu ba kenn duna ca man kon nag li ñu digal li mooy bu fi mbooloo bu mbooloo daje li ñu digal li mooy ku mën a jàng alxuraan ak noo ko mën a jàng ak fu ko jàng ak la ko mën a jàngal def ko ku ko man ku ko mënul te man ay xasida foo koo ko man wala mënoo ko nga ko la ko man sax mu defal la ko ku ko mën salaatu ala nabi mu bëriwul ku ko tële kon kenn kon loo ci loo ci man ci loolu nga ci waaye def ci ay berde nga ko yoyoo te yittewoo ko nga nga nga defal ne ko te euh, ka nga koy defal moom lépp ak àgg na ca moom waaw yéene ji rek ci am solo te yéene ji àggale na lépp daayira yit nee na bu ci yenn daayira dajaloo du fi ñëw di siyaare si su munta ñàkk bu fekkee lu daayira dajale woon nañ ko jox kenn nit wala kenn kooku kooku andi ko bu teewee mën naa teewal ñëpp waaye bu mbooloo mooy dajaloo di ñëw daal segam jot na ndigal ci sëriñ bi nee na moom képp koo xam ne si ne bànnee xam ngay wut wala bëgg-bëggam ngay wut wala wala lu neex si ab daxar ngay wut nee na loolu bul ko jëfe ndax moom du ko jëfe te lu mu dul jëfe lu ne dañ leen wax ne yéen ñëpp it na kenn jëfe kon lii lii liy ndigal daal mooy ñu màggal ko ci fañ nekk kenn ko ne fa nga nekk sa kem kàttan euh, lay berne yéen nga def ko yóbbu ko ci ñi ko gën a yeyoo ñu màgg ci ñoom ñu ngi ñaan nag lii e, muy muy muy lii ñuy wax mbas mii musiba bii fi wàcc lii ci Cheikh Mouhamadou Mountakha wax rek e, nun yëpp moom lañ ciy jëfandikoo lu nu yàlla wàcceel la lu jag la lu ko waaye wax tooñ ko nañ delluwaat ci sunu nañ delluwaat sunu borom te ñu ngi rafet njort lool nag rafet njort lool ci e, Cheikh Abdou Lahad fi mu tolloo nag mbinde fi li ko li ko li ko jaraloon ak ak ak ak ak ni jeexee ci ci ci ci ci ci Serigne ak ni mu jeexee ci lu déggal yàlla jàpp nañ ne màggalam gi bu jàllee euh, euh, lépp lu ñu doon jaaxlee ka tiit ka jaaxle ñu ngi ñaan yàlla mu ànd ak màggal gi mu yóbbaale ko ci ci barke ak barke waa kër Serigne Touba yëpp geen jëpp jëf. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu ngi nuyu mbokki jullit yëpp raw ak mbokki taalibe yi ci turu Serigne Sidi Mbacke mi xalifatu Cheikh Abdoul Ahad di sunu kilifa noonu ñëpp yi ma ci. dolli nag mooy fedd feddali waxi sëriñ Saalihu mi nga xam ni moo wax ci kàddu sëriñ bi ci te jotal lépp te dara desu ci xam naa li bindkat ba waxoon rek laay wax sa xaalat ansaami fa saddiquuha fa innal xawla maa xaalat ansaami dara luñ ci war a teg rek amul xanaa feddali rek li sëriñ bi wax bi ñu ci jiital nag mooy ñi nga xam ni euh, ñooy waa kër Cheikh Abdoul yëpp ak fu ñu mën a nekk ndigalul sëriñ bi ñu jottali leen ko ak taalib yi ni ko sëriñ bi waxee ñu fas ko yéenee defe it ni ko sëriñ bi santaane ndax kër gii nu nekk tey kërum ndigal la kilifa gii fi nekk it muy sëriñ Sidi nit ci ndigal rek lay wéy du ci amuk tànn ni ko sëñ Tuubaa waxee nun it nag moom dong la ñuy déglu moom rek la ñuy xool lépp lu mu ni lool la rek loola lañ fas yéene def nañ ko santaane wa maha salabu lixtiyaari ji sëñ Tuubaa wax ci taalibe ci melo yu murid saadix noonu lañ fas yéenee doxe noonu waa kër Cheikh Abdou Lahad ndax ci lañ fekkoon Cheikh Abdou ne ci jëmbati njabootam gépp jaar ca dara mos ko ital du ndigalu Sëñ Tuubaa bu ndigal xasee jóg rek amul amul jóg tànn moo ne ci Serigne Sidi mii nag tey nuy soññi nag mbooleem jànkate alxuraan yi comme ni ko sëriñ bi waxee ak xasida yi yëpp lu ci waay man na nga ko def ci sa kattan te def ko ci sa kër te yéene ko Cheikh Abdou Lahad bernde itam kër gi nu nekk tey këru teraanga ku xam na ko sëriñ bi liggéeyam bépp bépp bépp bi ci ëppoon solo bernde bokkoon na ci teraanga nga nit mën a def te defal ko ñay jàng alxuraan ya te defal ko mbooleem jullit yi te bañ dajale mbooloo nga def ko te yéene Cheikh Abdoul Ahad lépp mu àgg ci moom kaamil alxuraan yeeg xasida yeeg lépp ak salaatu annabi lu ci nit def nga yéene ko Cheikh Abdoul Ahad mu àgg ci loolu la sëriñ bi santaane te kenn bañ a dajaloo ni ko ko sëriñ bi digle rek ñu ko noonu mbirum daayira it sëñ Saal wax na ko noonu la ko sëriñ bi waxe jëf ji moom ba ñu ko yéenee jëf ko rek bu ko kenn indee ak ñaar ak ñett lépp sunu borom ak leen di gis sëñ bi ak di gis nañ ko indi ci na ko na ko kenn indi ci sëriñ bi gis ko teewaaleen mbooloo mépp ni ko Cheikh Salah waxee euh, mbas mi nga xam ne ah mu ngi ci biir réew mi sëriñ baa ngi ñaan ci barkeb sëriñ Touba di ko jaare ci barkeb Cheikh Abdoul Ahad yàlla jeexal ko takk ñu ngi gërëm tam mbooleem taalib yi ak jullit yi fu ñu mën a nekk ci biir àddina bi ci lu weesu lépp jëf ju rafet yi nga xam ne ànd nañ ko moom ak taxawaay yi nga xam ne ñu ngi koy ànd ak moom te lépp lu mu a taxaw ci mbirum Cheikh Abdoul Ahad rawat na ci màggal gi ak yëpp gis na taxawaay yu rafet yi nga xam ne ànd nañ ko moom loolu mi ngi leen ciy gërëm ci li weesu di leen sant ci liñ dëgmal fas yéene ni moom ci ndigal rek lay wéy nanu fas yéene ni ko sëñ Muntaxa sante digale ko ko noonu ñu defee ko noonu ñu yaakaar Cheikh Abdoul Ahad bu nu ko defee ni ko sëriñ bi bëggee yokkute ak ngërëm ak cant rek lañ ci jële ñu ngi gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf Cheikh Mahmoudan jërëjëf Cheikh Salih euh, bokki jullit yi bokki taalibe yi déggewaat nañ ko ni nga xam ne moom la ko sëriñ bi bëggee sëriñ Sidi day taalibe sëriñ Touba boo xam ne ndigal rek ci lay dox kenn musta dégg kàddoom ci dara. kenn mësu koo seen ab tànkam mu jëm fenn lu dul tool ya kër Cheikh Abdoul Ahad këram kooku nag ku fi mas a nekkal Serigne Touba tàmbalee ko ci way juróom wu sell wa di Cheikh Salihu Mbacke ma nga xam ne moom la tërbiyee wu jaar ci Cheikh Abdoul Ahad mi nga xam ne mooy way juróom ak mboolem doomi Serigne Touba yi ku fi mas a nekkal nekk na ci soroon di wut sa ngërëm ba am ko baax si ci magam ju tedd ji di Cheikh Mouhamadul Mountakha di xaritam di jëwriñam ci yoon wi mu di ko roy te ko topp ci ginnaawam sëriñ Sidi nee na ndigal loolu la fas yéene fo ab taalibe ma a ne ci biir réew mi ak bitim réew nga dimbale ko ci ndigal loolu te doxe ko te xam ne ko doxee ndigal li rek dab nga ngërëmam dab nga ngërëmul Cheikh Abdoul Ahad wax na nag ne mi ngi sant ñi mu bokkal maam Maharam Mbàkke rawatina as njabootu sëriñ Tuubaa gi ndax xam na taxawaayu yu yi nga xam ne am nañ ko ci bis ji ak yéene ji am ko ci moom ñoom ñëpp nee na mi ngi leen di sant ci li weesu lépp te leen di gërëm ci lii ñu dëgmal tey ñaan yàlla lépp yàlla rafet di sant taalibe yi nga xam ne lu ne ci kër gi ñooma Cheikh Abdoul Ahad ci biir taalibe yi la nekkoon damay wax ne kuy jox sa bopp Serigne Touba Serigne Touba jox boppam rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ba waxal boppam ne dammi wa ahli wa awlaadi fidaau lahu habdan xadiman lahu muskaana li sanada Serigne Abdoul Ahad roy ci moom na ko ataytukal yowma bi leen xitaahi kulliyati yaa xaadimal mutaahi moom mi nga xam ne jaayante na léppam ca bam ne léppam nag Serigne Sidé nga ca biir mbooleem njabootu Cheikh Abdoul Ahad nga ci biir mbooleem taalibe yaa ngi ci biir moo tax mu ne buñ amuk tànn nañ bàyyee suñu bopp Serigne nee na mi ngi sant dongo yi ci li li weesu lépp di leen ñaanal ci li ñu dëgmal bis baa ngi noonu nag Serigne Touba nag moo waxoon ne bis bii di ñaar fukki fan ak ñetti ci weeru kor yi fu ab murit ma ne ne ci àdduna bi moo xam nga dib seex ñaan naa la nga teral la ma sama gan gii ci sa biir kër kon day mel na ndigal loolu moo del si waat tey jii sëriñ Sidi néewut nañ bàyyi màggal gi na ko ku ne màggale sa kër donte yow doo nga nekk sa kër sax nga jënd sab gàtt raay ko bañ xam ne tey la màggalu Cheikh Abdoul Ahad nga santalee ko sëriñ Touba yàlla mi ko jox Cheikh Abdoul Ahad sëriñ na ko def daayira ñu ne ci biir réew mi ñu nekk bitim réew koo xam ne dajale nga sab daayira ci ne ci biir réew mi te kenn nit mën koo andi na ko andi su fekkee ne mën nañ ko jaarale ci waneen yoon woo xam ne nit du ñëw nañ ko andi waaye nag nee na addiye moom da koo moomut sëñ Touba ko moom moo tax sëñu ne bàyyi leen addiye yi kon fu ab taalibe mën a ne sa addiya daa dem ci màggalu Cheikh Abdoul Ahad gi yoon woo mën a jaar ba andi ko boo dikkee da nga fekk Serigne Sidi kon nag Serigne bi nee na mi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal nag ci barkeb Serigne Touba dara jëy jëwri ñoom jii fi nekk di Cheikh Mahamadul Muntaxa Serigne Touba mi ñaanoon ne wan fil wabaa wal balaya kullaha hanha wa tayyib surbaha wa aklaha yàlla na jeexal mbas mi ci àdduna bépp wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu